waa tout à fait xam nga keroog euh, au niveau du ministre de l'intérieur ministère de l'intérieur def na keroog benn point de presse j'étais là-bas avec mon collègue de ministre euh, Fofana. d'accord te wax nañ fa wax nañ fa keroog lu leer que effectivement nous avons constaté depuis des années d'ailleurs ay sénégalais yoo xamante ne d'ailleurs c'est pas ce sont des sénégalais d'ailleurs en tout cas des personnes. qui ont délibérément décidé de d'influencer wala de de de de d'appeler les sénégalais à la révolte. et de vouloir semer la chaos dans le pays à tout prix nag à tout prix c'est parce que tey tey bàyyiwuñu kenn dañuy viser état dañuy viser journalistes yi viser des sportifs bëgg si jeen lu si yoonam ci politique c'est c'est un jeune nous sommes tous nous sommes de de de son talent ñu mel ne dañ la war a épargner ci ci ci ci lu bare mais boo xoolee tey jii lépp loo xam ne dafa mooy warmal Sénégal lépp loo xamante ne mooy fierté Sénégal am nañ ay quelques groupuscules de sénégalais yoo xamante yi nekk à l'étranger ils ont décidé de bafouer de de de de dindi seen wormal si muy kilifa diine yi muy homme politique yi muy homme d'affaires yi muy homme de médias yi muy la presse muy partout fu ñu sénégalais boo xamante ne dafa liggéey addunam yépp ba sonn il ne doit rien à personne dañuy jéem a dindi sa wormal jéem la effectivement yàq sa der tout ça pour déstabiliser le pays. Parce que qu'un pays se déstabilise de plusieurs façons. Sur le terrain physique, ak yooyu sàndee xeer taal ay pneu yàq ay alalu jàmbur loolu c'est un c'est une méthode. Hmm. mais méthode méthode bu gën a grave mooy ban mooy la déstabilisation morale. Hmm. boo xoolee réseaux sociaux yi di gis loo xam ne sa xool day tàng même bu nekk si bi même tëdd sa kaw lal nga xool ay vidéo yu lay choqué choqué sa njaboot choqué say doom choqué say njaboot. yow personnellement yow sa yow sa def sa xol day jóg te fi nga toog ginnoo de waxoo kenn de mais yaa ngi xool sa téléphone di am un choc par les images que yi ngay gis image yoo xam na amul benn filtre image yu ay wax yu bon ay wax yu yu lay vraiment yu yee na ci réew mi parce que Sénégal dëkku jàmm la aussi parce que ñun ay nitu jàmm lañ sénégalais. nitu hmm. jàmm mais y a des gens aujourd'hui des gens violents dans le langage violents dans le comportement violents à tout bord. dans l'esprit et dans et dans les actes qu'ils posent ñooñu jii il nous il nous il nous il donne il donne à nos jeunes wala à la population sénégalaise un stress permanent dans les réseaux sociaux. mais tax nag mhm. euh, moo tax nag à défaut d'avoir monsieur le ministre sama question oui Fatima euh, euh, ñaata temps la nar Euh, buñ ko évaluer euh, ci ci ci bi bi bi bi nga xamante ni sénégalais yi doon nañ contourner si yeneen voie pour am internet ci seen i téléphone aujourd'hui opérateur téléphonie yu ci bëri euh, ñu ngi excuser wu joxe information comme quoi que mënatuñu connecté à partir de suñuy données mobiles pour des raisons de sécurité et ci ban moment la jëm beneen bi ndax mën nañu xaar communiqué bu ju tukkee ci gouvernement Sénégal wax ñu niñ ko waxee à l'université ni étudiants yi peut-être jusqu'à nouvel ordre xale yi nga xamante ne waroon nañu composé depuis le 5 wala boog waroon nañu ko def depuis euh, suba incha allah euh, euh, ci ci ci yan disposition la la la la la la war a mën a tegu ba ñun suñu xel dal ñun parent yi. waaw d'abord ma ma eggale rek question bi ma Birame posé woon par rapport ak ñi nekk ci diaspora bi di. di di di di ay yenn propos yi. li ma leer ba leer mooy l'État dina jël matuwaayam yépp ba bépp nit foo munti nekk ngay sénégalais waaye ngay étranger ak foo munti nekk ci àdduna bu dee ci ci rek nga nekk nous fin à ces à ces pratiques ku ku koy ku koy def na la leer nekkoo ci jàmm nag ça c'est ça c'est que ce soit ñoom xam nañ ko sax d'ailleurs parce que ñu koy def yëpp dañuy làqatu di di di dugg fu ne pour parce que ils ont même important ñi ñu xam ko ñi ngi wax wax yu métti yooyu du jaay jàmbaar jaay guerrier kenn du leen gis fenn dañuy làqatu. seen suufu laal la ñu dugg def seen ay ay audio seen vidéo génn naan ñi ñi nga génn leen ngeen taal génn leen ngeen lakk alors ko ñoom ñi koy wax suñu ruq bu ñuy nekk kenn du leen gis dañuy dañuy nëbbatu bu ñuy génn mel ni ay jinax kenn du leen dégg ñu tax naa sénégalais yéen ay yéen doo leen ay jàmbaar génn leen ngeen xeex génn leen ngeen jàmbaar loog nit ñi ci benn waañ la ñuy nekk wala ci benn suufu laal la ñuy nekk di wax loolu du ñuy du ñu génn bu ñu génn rase les murs loolu tamit c'est important sénégalais yi xam ko aussi donc fekk si sont courageux affiché wu clairement def li ñuy def ñu xool laa de résultat donc kii wax loolu di làqatu kooku sax amul courage bu mu bëgg imposer jeunesse sénégalaise bi loolu il faut que yi xam ko bu baax ñii wax loolu yëpp ils n'ont pas le courage de de nañ ñëw Sénégal wala ñu génn fa fi ñu nekk sax nañ génn mbedd mi ne voilà maa ngi nii da nga def sa discours mais ci oto ci oto la ñuy dugg ci ay suuf camion la ñuy dugg làqatu ñoom ñoom si boppam day làqatu ba pare ba pare naan ñi ñu génn leen ngeen taal te yow yow mi di wax da nga làqatu pendant cinq ans yaa ngi wax mais saa yoo wax dangay ngay làqatu ci benn ruq ngay nekk kenn dul xam foo ne ngay làqatu donc yow amuloo courage c'est très important de le savoir les courageux dañuy génn ñeme ni ñuy def am fit ni ñuy def bu loolu weesoo bu loolu weesoo l'état du Sénégal mesure bi c'est une mesure d'exception c'est exceptionnel parce que le principe c'est de laisser la liberté des réseaux et tout loolu mooy principe bi Mais on va évaluer situation. En fonction de la situation, nous allons lever. pas, pas, pas une coupure euh, à 24 heures sur 24, c'est à quelques heures, euh, am. Mais à part, et puis, coupure encore, m'a rappelé fi au domicile ou dans les lieux de travail est, est, est, est tout à fait disponible et ouvert. Internet n'est pas fermé. C'est par le par les données mobiles loolu la ñuy parce que pour éviter justement ñu utiliser données yooyu pour euh, effectivement gën a euh, indi trouble à le public. mais li may wax boo xam ne aussi mooy mhm. sénégalais suba bu ñu xëyee nañ liggéeyi. Mhm. sénégalais yi suba bu ñu xëyee nañ liggéeyi dox seen soxla tabaski baa ngi jub si nit ñi am nañ ay soxla war ko war ko lijjanti te gis ngeen ni xaw fii démb ak barki démb sàcc ak vandalisme la gën a nuru qu'une revendication. Mhm. loolu ñëpp teg c'est du vandalisme amul benn message politique derrière ku foog ne message li li am fii c'est un message politique ce n'est pas une vérité ku an on fait une analyse nañu froide des choses di c'est pas un message politique li xew fii mooy ay sàcc lañ ay vandalisme la la ñuy la ñuy def fii actuellement vi que qu'on on voit les véritablement les comportements d'action yi ñu gis fii amul benn message politique derrière que du vandalisme kese moo tax jot communiqué buy buy wan peut-être xale yi war reprendre parce que am na ci école yoo xamante ne ce sont des écoles privées jot nañu ay message ci parents que ils reprennent mercredi. Mm-hmm. tout à fait mais en tout cas la situation va revenir à la normale mmh. cette semaine. cette semaine ça c'est clair. parce que l'État a pris toutes les mesures laa wax quand je dis toutes les mesures vraiment toutes les mesures. Mm-hmm. pour arrêter ça. parce que ce n'est pas une manifestation c'est du vandalisme. Mhm. Mais monsieur le ministre, a il y a il y a deux ans 2021 il y avait le président de la République def benn sortie di wax ak askan wi bi la yoon dégguñu ko gisuñu ko c'est peut-être euh, Benno Bokk Yaakaar en conférence de presse ce sont les ministres de l'intérieur le ministre de la communication que vous êtes. Mhm. le ministre euh, porte-parole du gouvernement. alors mhm. qu'on est quand même à 16 morts. Euh, la Croix-Rouge qui nous parle de presque 357 blessés yoo xamee ni euh, ñoom jot nañ leen secourir ci manifestation yi nii mhm. où est le chef de l'État parce que ñenn ñi sax ne ñu mais tey bu moo waroon a génn mhm. wax ak askan wi donte mënul euh, fay lépp waaye au moins dina am ñenn ñu mu rassurer oui euh, xam nga événement 2021 dafa wuteeg événement yi parce que 2021 monsieur bu dee fàtte dañ nekkoon ci Covid 19 lañ nekkoon période bu yàgg boo xam ne sénégalais yi sonn nañ ci trop trop trop trop ñu nekk dans une dans un contexte difficile moo tax événement 2021 yi président public xool situation bi il fallait nécessairement que il y a plus les morts bien sûr plus les morts bien sûr c'est normal que président public génn wax ak population parce que li bool li ëmboon manifestation 2021 yi moo bari manifestation yooyu nag bokk la manifestation yi ngay gis tey jii tey jii manifestation yi gis nañ ne au départ l'élément déclencheur c'est le c'est procès de Sonko mooy élément déclencheur bi mais gis nañ tout de suite que en réalité li gën a soxal ñi koy def yëpp ce n'est pas une revendication politique c'est plutôt benn volonté délibérée parce que premier ministre l'intérieur wax na ko am nañu nekk ci suuf euh, te force tapis dans l'ombre yuy xam ci suuf gis nañ métraillette yi ñu ngi yor ci mbedd bi on a vu beaucoup de choses donc loolu c'est un c'est un fait donc gis nañu aussi ñiy gën a manifester ci yi yëpp di génn yëpp ay xale yu ndaw lañ ils n'ont même pas l'âge de voter quatre-vingt pour cent ñiy manifester yëpp xamul boo leen laajee lan la de xam naan ah man xaw ma la xew ah man de man de gaa maa ngi maa ngi dem Auchan laa jëm nii ah wala man de dégg naa projet Sonko ah dégg naa ñëw ñëw xam nga donc amul benn revendication est-ce que est-ce que ça gis ngeen quelque part loolu doo doo doo man de vous qui suivez vraiment gis ngeen quelque part manifestation yi ngeen gis yëpp gis ngeen benn pancarte wala benn carton bu ndaw rek bu ñu bind libéré diw wala message politique dessus y en a pas y a aucun message politique dara yàq rek daj ay boutique jàmbur les sut les boutiques ciblées aussi. boutique jaay téléphone dugg fa yàq jël alalu jàmbur. xooloo ndax kii pat ko moom ban fan la féetee sénégalais simple simple amul benn fenn fu mu féetee wala xooloo yooyu ça cest que aujourd'hui même les gens de kenn amul ci maîtrise li xew fi yëpp personne parce que dañuy yàq rek di wër di sàcc rek xooluñu lii diw moo ko moom xooluñu xooluñu lii lii diw ko moom donc kenn mënul de la preuve vous allez kenn si ñoom mënul taxaw ne lii xew fii man leader diw maa tax lii am maa maa maa maa tax booy am courage non ce qui se passe c'est du vandalisme point barre. mais euh, monsieur le ministre justement xam nga yow tey. Euh, jot nañ la téléphone nga mën a expliquer sénégalais yi di ñu déglu di ñu seetaan situation bi au moins daral seen xel est-ce que tey tamit euh, jotul télé yi nga xamee ne dañu dañ leen tëj wala mënuñu sax jàll ci li nga xam ne moom mooy internet je prends le cas de Walfadjri euh, nga xam ne dañu tëj ay ay signalam ak yooyu est-ce que tamit ce n'est pas une opportunité pour que ñu permettre ñuy woowee des journalistes euh, euh, traditionnels wala ñoo xamee ni ñu ngi ci ay këru liggéeykaay yu mel ni fii ci leeral ñu mën a justement servir de relais pas seulement à l'État mais au moins permettre aux, aux citoyens de pouvoir s'exprimer euh, ndax loolu bokk na ci lu mën a tamit wàññi tuuti tension. waa xam nga la presse c'est une responsabilité la presse responsabilité la booy wax est tamit di la déglu. façon ni bu nekk di la déglu partout dans le monde war nga xam bu baax li ngay wax ça parce que y a un problème au Sénégal hmm. am na ñu bëri ñoo foog na ñoom média bi ñu yor wala bu ñuy diriger c'est un pouvoir pouvoir contre qui contre le contre l'autorité hmm. wala c'est un moyen de pression parce que nous sommes Sénégalais ah ku am organe de presse li si gën a bëri ni ñu koy xalaatee c'est pas un truc professionnel non da nga naan man am naa am moyen de pression ci ci nguur gi ci ci ci ci homme politique yi ci homme daffaire yi ci tout le monde parce que bu nekkee homme ñu koy titre la tey euh, dans la presse que yow mii def nga lii sa entreprise yàqu na sa der yàqu na ça pourrait que le délit de délit de diffamation am c'est pour justement encadrer loolu éviter la ce pouvoir médiatique là nit yore ko c'est un pouvoir doole la mais Sénégal ni ñu ko considéré on le considère comme un pouvoir au sens que mun na am un droit de vie ou de mort morale ou de mort politique ou de mort euh, euh, économique des des des d'autres citoyens sénégalais loolu moo waral y a certaines chaînes comme comme Walfadjri par exemple ils se sont mis dans la tête que ñoom c'est une radio c'est une c'est un groupe de révolution de contestation un groupe de contestation lañu ko jàppee ñoom donc loolu boo c'est le ils ont la liberté am seen ligne éditoriale dans la dans leurs journaux wala dans tout ce qu'il faut amul problème mm-hmm. mais lorsqu'ils font des commentaires ou des analyses l'analyse est libre le commentaire est libre il faut pas confondre la chronique l'analyse avec une incitation de mauvaise foi à la violence mm-hmm. la limite la limite est très difficile e très délicate c'est pas pour rien que nit bu nekk pour nga génn sës si ba mhm. da jàngal li nga xamante ne mooy analyse jàngale li nga xamante ne lii boo dépassé la ligne rouge la rouge rouge bi yaa ngi dans la propagande mhm. yaa ngi dans la propagande yaa ngi dans un autre domaine qui est dans un domaine carrément politique et c'est très important que journaliste mën a def mën a def mën a def euh, la différence moo tax l'état du Sénégal il a un rôle de contrôle. C'est ce rôle de contrôle, moi, personnellement, je l'assume pleinement. Parce que on ne le fait pas pour pour la fort. Cinq ans, il y a plus de 300 partis politiques, il y a problème. Mais il faut qu'on de Dès lors, dès lors, ligue journaliste, dès la presse, dès lors, dès lors, dès lors, dès lors, la presse, surtout sa dignité. Dès lors, sa dignité. Biram Touré, moi, je te dis, hein, franchement, man yàgg naa le suivre dans beaucoup de j'étais je suivi par même pendant les événements de 2021 et je me je, je peux dans un média quand même où le patron était lui était, un homme politique avéré affiché il n'y a pas de problème mais événement de 2021 moi je vous ai suivi dans plusieurs plateaux vous étiez dans une discussion dans un dans des débats de professionnels di wax li nga xamante ne loolu nga war a wax même su fekkee loo xam ne man sax man en tant que fu ma ma je vois que une objectivité dans vos propos mhm. musuma gis sa propos li nga xam ne da koy wax tey jii pour nit ñi rek wala pour ñu mu neex nit ñi rek ngay wax loo xamante ne mun na taal réew tu la vous le ferez jamais kañ jarul ko muy nguur jarul la ko opposition jarul ko amul benn homme politique bu la jaral yow mi Birame Touré mhm. pourtant li may wax xam nga ba parce que je je je vous ai suivi la woon. tu donc ça veut dire que au journaliste tey jii da nga war a am laaj yow yaa ngi sa bopp say règle mm-hmm. ni ko def yaa am fulla ak fayda sa bopp mm-hmm. ne man fii la war a parce que dama am benn responsabilité personnelle vis-à-vis du peuple sénégalais mm-hmm. mun nga forde d'accord mais da nga am responsabilité personnelle maa ngi wax barki dem dans un dans un média de la place de la place li xew nii chacun dans c'est une responsabilité collective politiciens yeeg sëriñ si ak acteurs économiques yi chaque a sa responsabilité pour la stabilité du pays bu kenn foog ne ñi ñoo ko war a def ñenn ñu toog fële parce que dëkk bi amul jàmm kenn du am jàmm parce que boo amul jàmm bu dëkk amul jàmm di nga am benn mbokk rak wala xar wala xar xaritu xar wala xarit boo xamante ne nekkul ci jàmm on voit des enfants qui meurent les familles qui sont aujourd'hui en deuil les quinze familles ne seize familles qui sont en deuil aujourd'hui d'accord merci tey man dernière mhm. question bi ma am monsieur le ministre mooy l'heure est grave bi ñuy dégg di tiital askan bi est que yow mi nga xam ne xëy na jege nga gouvernement bi am nga yenn information yu bëri bëri yu nga xamante ne xëy na mën nga ko dalalee xelu téléspectateurs yi ñu war a xëy liggéey xale yi war a xëy jàngi ñi frigo yi vide ñu war a dem nduggi et cetera et cetera l'heure est grave chaque fois ñu ngi koy dégg l'heure est grave même si on n'a pas accès à internet via les données mobiles tout le ñu ngi dégg l'heure foo toll ci Dakar yaa ngi dégg ay grenade lacrymogène yaa ngi dégg yuuxoo et cetera ñun est-ce que mën nañu ñu ngi dund benn psychose monsieur le ministre est-ce que mën nga dalal mhm. suñu xel tuuti ci ne wax dëgg yàlla les choses vont se tasser cette semaine ou dans quelques jours. waaw maa ngi dalal seen xel bu baax a baax dalal seen xelu askan bi yëpp dalal xelal askan mi seetaan maa ngi dalal ñëpp seen xel suba ku yeewu na xëy dem liggéey suba ku yeewu dama la xëy dem dem toppatoo sa liggéey parce que dëkk bi ci jàmm lay nekk. et l'État a pris toutes les dispositions laa wax pour que ñun dëkk bi nekk jàmm et puis d'ailleurs on voit qu'il a une baisse vraiment drastique de la violence hmm. depuis depuis depuis presque quarante-huit heures maintenant il y a une tendance baissière de la de la de la de violence donc que sénégalais aussi nañ am fulla ak fayda seen bopp suba bu nu ku nekk bu xëyee dem outil loo loo dépense loo joxe dépense sa kër parce que c'est ça la réalité Sénégalais ne peut pas se permettre toog fi ay fan nekk dans un stress ay xale yu ndaw yoo xamante ne dugg bitik di sàcc di def di gauche droite ñu leen di bàyyee noonu yow nga bañ bañ a liggéey am la psychose psychose c'est vrai mais l'État est là pour restaurer restaurer la sécurité de tous et je vous dis que suba incha allah ku yeewu dama bu xëy dama liggéey dëkk bi ci jàmm lay nekk la situation est est maîtrisée et est connue et maîtrisée ça je peux vous donner cette je peux vous donner boo xamante ne état du Sénégal à la maîtrise de la situation mm-hmm. dëkk bi suba ku xëy na dama liggéey. D'accord, merci merci monsieur le ministre euh, d'avoir euh, voulu répondre à nos questions mm-hmm. xam nañu fi ñu toll ni ñoom mm-hmm. euh, sonn nañu comme ni force de défense et sécurité yi sonne <laughs> euh, waaye comme ni askan wi sonne aussi parce que askan wi sonn nañu euh, certains aujourd'hui demandent la démission du ministre de l'Intérieur d'autres demandent tout simplement que euh, Macky na départ wala na dem mhm. mais on est dans un état de droit te am na foo xamee ni état bu delloo ginaaw rek mhm. bonjour la chien lii am na foo xamee ni état même lu mu metti metti ci moom mhm. metti ko tamit ci ñun